这样。 ayca ma dikkati waxati ngeen déggati critique yene kaay daal di taxaw ci président Macky Sall ak troisième mandat ga muy laajte ba léegi dara leeragul ci bakk askan bi ba xam ab benn waxtaan sax amulum ko ci état bu Sénégal ak ngàbbinu dossier Ousmane Sonko Adji Sarr mi nga xam ne moo lëmbee jamono ji ubbil yeneen yéen kaay gi di tribune daal di taxaw ci président Macky Sall ndaxam nawlewul opposition bi dee daal di koy jaarale ci parrainage ak code électoral bi bi nga xamante ni opposition yu bari ci lañ daal daal dëggal sërëx daal di leen jaarale foofa ba daal di neenal seen candidature waa Ndiassane daal di woote sénégalais yi daal di nag nañu bàyyi fitna ga ñuy yee ci biir réew mi ndaxte loolee mën na jur jëyee ëllëg ci Sénégal waaye daal di taxaw ci dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr ndaxam ëllëgam daal di mujjee ci benn chambre criminelle boo xam ne dañ koy jëmmal ngir rek mu daal di saytu loolee ca lépp ca dossier googee mag ñi dëxañ ci biir journal gi waaye geneenu journal daal di taxaw ci nekkinu assemblée nationale pencum ndaw réew ma le groupe parlementaire bu yeewu askan bi daal di traité Khalid Amadou Mame Diop mi fi jiite assemblée nationale googee nee na taxawaayam biir assemblée nationale jaaralu ko ci benn yoon ci yoon ak ci dëgg Yoff ak woo Sénégal yi ñu amal benn apaisement ndax ci tolluwaayu tension politique bu Sénégal ak société bi lañu fa nemmeeku tax na sax kilifa diine yi daldi di addu ci li mel waaye journal gi daldi addu ci mbiru Mame Niang Ousmane Sonko manifestant yañ ca tegoon loxo te lu fanweer ak benn soo saagunul danañ leen tëj ñetti weeri kaso yu ñu tëdd journal Sud Quotidien daldi taxaw ci assemblée nationale yewi Askan bi daldi Boubar, bu baax l'assemblée nationale boobee daal di jàppee kële di président Amadou Mame Diop mi nga xam si ni jàpp nañ ni daal moo bloqué assemblée nationale boobee assemblée bu deful liggéeyam Amadou Mame Diop rek la beneen yéenekaay di enquête yéenekaay daal di taxaw ci ñaari doomi bàyyi di Khalifa Sall ak Macky Sall ci nga xam si ñu ngi koy jongante ci biir réew mi daal di de wàcc askan bi ngir dagaan seen i baat yéenekaay gi daal di àddu ci assemblée nationale Yewwi Askan Wi daal di jàppee doxalinu assemblée nationale dafay nasaxal lii di démocratie réewum Sénégal tolluwaay réew mi sax tax na ba yi daal di Walfadjri quotidien dafa daldi baye xel bu baax baatu kilifa diine yi ñi jébal sa su nek ñi di politiciens yi muy laajte ndaxam message booba dafa àggulam déet lan moko tax ca benen wala tamit Sénégal daldi nay mujjé ci top 5 lion yu préféré yu Sénégal bu ñu sukkandiku ci sondage mondial 2022 bañ ci amal way lu ñeel ndaw yi Pastef tégal loxo loxo lu ci fanwe rek benn seen ëllëg dana mujjé ci ak prison bu ñu sukkandiku ci journal gi bartlemi Diaz daldi di àddu rek ci ñu ñeel li nga xam ne moom restriction yenn ci ancien détenu continue ngir rek état bi dafa war a daal di bàyyi xel pour rek jébbal ay politique publique ñu bàyyi ci xel bu baax nekkinu askanu Sénégal génneenu yéenekaay di l'observateur daal di bàyyi xel présidentielle 2024 parti bële di PDS daal di toll ci cas grave ndaxam këlikan seen candidat bële di Karim Wade ndax absence seen candidat di Karim Wade ak pat pataaral gi ñeen ci responsable ngir la ñu waroon def ci à la base dañ ko daal di bàyyi loolu nag daal di rey parti bi ba mu dee wet banqaas bële di saytu lépp lu jëm ci njug njaaj ak ci biir toll ci ay jafe-jafe am fukk ak benn ci ay membre am dañu daldi àgg seen asu retraite te juróom ci ñoom daldi di jeexal tàgg waaye équipe nationale Aliou Cissé may tàggat gone yee daal jël bëtam daldi koy teg ci CAN 2024 Aliou Cissé nee na noo def rek ñu daldi dem jël CAN boobee ndax ñooy boroom pil yéeni kaay gi di alerte quotidien daldi taxaw yewi askan bi daldi ñaawlu lu baax a baax taxawaayu Amadou mam Diop ci assemblée nationale ndaxte nee nañ moom daal ba mu fa nekkee ba léegi yóbbu lu muy assemblée nationale député fasante wuñ xànceeg morom nga amal du ñenn député opposition bi kay gi di yene kay dafa daal di taxaw ci Aliou Cissé mi tàggat suñu goynde yi mom nak xam le ni jéxalul benn yoon tay tey la agna am forme gëna am yene pour rek daal di taxaw Sénégal daal di yóbbu gane yee CAN 2024 bay amé ci Côte d'Ivoire CAN U20 Sénégal dali di qualification quart de finale déjà suñu gaynde yi di xamal Sénégal dafa bëgg def rek benn palmarès bo sans faute lay doon jamono ji nag fi ñu toll mag ñu bari dañuy daal dund li nga xam ni ak viol ba tax na sax benn mag daldi di àddu bu am ñeent fukki at ak juróom moom waxambaane moo ko daal di sàkku ba tax sax moom muy joxe ay xalaatam ci biir journal gi loola nag def fi jur ay sëkkeel yu muy daal di bàyyi ci ñoom ba tax rek ñoom duñ ko fàtte bu mukk muy loo xam ne dañ koy ñaawlu. Audio